Jajaay eb jajaay Pape Djibril Fall waaw Pape Djibril Fall xale bu yàlla bu baax boobu Baron Charette aca ok Elle également elle fait partie des marraines. Donc on attend le moment à l'autre l'arrivée de sa délégation. Nous sommes

C'est pas la peine de marcher sur le trottoir. Mettez-vous derrière, s'il vous plaît. Après, après les instruments, s'il vous plaît, après les instruments. On s'il vous plaît, les instruments ont démarré, on s'il vous plaît. Les bras, tout le monde, les bras vers le ciel. Ah, Tout le monde les le ciel d'abord, tous les côtés. Allez flotter les jambes vers l'avant, flotter les jambes. Donc il devait avoir des espaces entre vous. Les genoux la poitrine. Faites monter les genoux. ànd de FDS lañu amal tey ñi nga xam ni ñoom ñooy Oh, that's fun. waaw Ibrahima de moom waaw def na rotation bi la voilà di jaajëfal aussi le le maire ki nga xam ni moom mooy le maire de Fissel boo ko fi représenté mais délégation mi ngi ñëw le de Diaganiao donc loolu aussi ñu fàttali ko le de Diaganiao mi ngi di leen am na vaccination yi parce que bu ñu nee vaccination wax vaccin yëpp y compris Covid 19 y compris li nga xam ni moom mooy bi wax HPV ci àdduna ñoo coordonné yëpp. Mhm. def wax dëgg yàlla ba yëpp bonjour à tout le monde maa ngi nuyu ñëpp ñi teew. c'est bon maa ngi nuyu ñi teew ñëpp tey ci centre bi ci randonnée bi nga xam ni moom la ñu organisé donc pour la visibilité du centre maanaam pour centre bi ñu xam lu fi ne ensuite. Euh... ak euh, thème bi nga xam ni thème santé vaccination contre euh, le cancer du col de l'utérus voilà donc ñu ngi nuyu pour ne pas borom dëkk bi ñu teew fii ñii ñëpp du serait trop long donc pour euh, di leen donc di leen gërëm di leen sant ah li tax ñu def randonnée bi mooy pour une visibilité du centre pour itam dëkk bi composé de vingt-huit villages ñaar fukk ak juróom-ñetti villages donc bu ñu gisee ni ni ñuy fréquenter centre bi xam nañ ñu doyul des na donc c'était l'occasion pour nous ñu def mobilisation bi nga xam ni tous les villages donc étaient là présents bi ñuy euh, préparer li ñu dugg ci biir euh, village itam sensibiliser ñëpp pour la fréquentation d'espace du centre qui comprend plusieurs filières filières yi je pense que vous aurez l'occasion visiter ko mooy filière industrielle ak filière de l'économie familiale ci biir filière industrielle di ngeen ci gis di ngeen ci gis électricité di ngeen ci gis maçon di ngeen ci gis menuiserie métallique ak menuiserie bois plus agro euh, agri élevage pour les métiers de l'économie familiale nous avons la restauration la couture et la coiffure ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi ñuy ñu ngi koy waaj ubbi donc bu ñu incha allah madame euh, la directrice de la formation professionnelle n'est-ce pas jàppale donc ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant Pape donc euh, pour ne pas trop monopoliser la parole.